Anyways.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 dal di koy tëddee ba naaru lay ma eti étudiant bi mu ngi wuyoo ci turu es caam am lu toll ci ñaar fukki at ak ñaar moom daal dafa demoon ci sëriñ boobu doon fa sàkku ay ñaan ngir mu jàppale ko ba mu mën a réussir ci ay études am ne loolu jàng dong koy may naka noonu ci la ko sëriñ bi liggéeyee ba xamatul fu mu nekk dal di koy tëddee moom étudiant bu góor boobu waay waay kii bon te xoolal rek nee ñu sëriñ boobu mu ngi am lu toll ci ci juróom benn fukki at ak juróom di woo ci turu MSN li gën a doy waar nag gannaaw ba sëriñ bi tëddee étudiant bu góor boobu ba noppi dafa dal di ma maniwu xale bi dal di koy def ci ab récipient denc ko ma ne fétis rek lu ne la ñuy fétise ci réew mi gannaaw ba mu defee jëf ju bon jooju xale bi nag daf ka joxaat herve dans quarante-huit heures étudiant bi nag ci diggante bi bi mu demee ba ximmaliku ci ngëlëmal bi ko sëriñ bi gëlëmal ci la porte plainte sëriñ bi tribunal bu grande instance bu Diourbel waaw waaw naka noonu ci la gaa yi commandant BM Diallo wóoree sëriñ bi ba ne ko nuus teg ko loxo gannaaw ba ñu ko defee garde à vue ba noppi am seen di sëriñ bu bon boobu mujj nañ ko defeere ca parquet bu Louga waaw góore waay di ko toppee nag li ñuy wax acte contre nature xoolal ma lii rek réew mi li fi ne mënu koo wax moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew jëndin di doy na waar baykat daal moo fa jàpp ab xale bu jigéen bu am huit ans dal koy violé ba noppi bàyyi ko ci àll bi ëskay mbir mi mu ngi xewee ca gay-gay nekk ca arrondissement bu ndindi ab baykat bu am lu toll ci ñaar fukki at ak juróom moo fa jàpp ab xale bu jigéen bu am huit ans ko ba noppi bàyyi ko ca àll ba victime bi mu ngi wuyoo ci turu SD xale bi nag nee ñu dañu koy yónni woon ngir mu wali ca ndindi diggante bi mu waroon a def ngir dem wali toll na ci ñetti kilomètre naka noonu ci la ko saay-saay bi seenee ci àll bi dal di koy dogalee ki ndappe ko dal di yóbbu ca biir tëddee ko ba mu yàqu yaxeet ba noppi sànni ko ci àll bi <laughs> waay waay ñii dañoo feebar de baykat bi def ñaawteef bi nag mu ngi wuyoo ci trois reg xale bi nag ci ay conditions yu metti la ñu ko fekkee dox sax mënu ko cëy mim réew ma ne ci mettit boobu lañu ñu ko yóbboo ci saasi ci ab sage-femme sage-femme bi gannaaw bi mu caytoo xale bi ma ne hésité sax defu ko ci saasi la saisir commandant brigade gendarmerie bu jur Diourbel naka noonu ci la beem jàlloo ak ay éléments dem ca gay gay xale bu bu jigéen bi nag moom ci ab ambulance lañ ko yóbboo ci hôpital régional bu Diourbel bi mu egsee lañu ko interné waay waay ñi yëpp bon waay waa ji di baykat bi di saay-saay bi nag gannaaw bi mu yegee gravité li mu def ci la ne fëx daw ma ne ko dóor a ci de certificat médical bi nag diis na ndax li mu wane mooy yegg nañ ci xale bi ba noppi yàq ko yaxeet moo tax baykat ba dawoon mujj nañ ko teg loxo ba defeere ko ca tribunalu grande instance bu Jurbel ma ne ko ak loi viol bi dugg nga ni ruba moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca Mbaaw doy na waar ab cambriolage bu jéggi dayoo moo fa am mbete film laa wax moom daal ak commando bu huit hommes armés armés jusqu'aux dents laa wax ay machette ay mitraillette ay jaaseeg yeneen i arme ñoo def descente ci kër commerçant bi di wuyoo ci Cheikh Thiam dal di barricade koñ bi vers heures du matin ma ne mbéte film laa wax bi ñu egsee la ñu jàpp gardien bi lapp ba mu nekk soin intensif dajji buntu kër commerçant bi dal di dugg ci biir fekk commerçant boobu mu ngi woon ci kër gi ak ñaari jabaram benn jabar ji nag bi mu yëgee bruit bi la génn di xool dal di yem ci malfaiteur yi ma ne ko cauchemar dëgg waay naka noonu commerçant bi moom it bi mu génne ci duusam di xool li xew ci la yemee ci gaa yi gaa yi dal di koy teg goon naka noonu mu wan leen benn coffre-fort bi ñu dajji ko yóbbu lu toll ci deux millions naka noonu ci la ñu jubalee ci deuxième femme bi waaye xam nga nit ñi dañoo xam kër gi moom it dal di koy jàpp wulli ko ba muy bëgg de dee mu wan yeneen ñaari coffre fort yi ak ay bijoux malfaiteurs yi ne ko tungaañ dal di duggaat ci seenu pick-up ma réew mi li fi xew jéggi na dayo insécurité bi jéggi na dayo laa wax waaye nag waaye bi seer na waaye bi moom mu ngi bëgg rey borom kër yi moo tax lu ci état bi gaaw waaye ñu xeeb sonn nañu mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru bës.